taxawu Sénégal Khalifa Sall euh, espoir bi bëri woon lool ci yéen euh, tey jii nii résultat yi mu tàmbalee wadd ak léegi trois heures de temps lay toll jàpp euh, yéen gisee ndax jàpp ngeen ne ba tey mën ngeen bokkaat ci ñaar ñi nga xam ne xëy na ñooy dem ñooy dem au second tour. non sant yàlla d'abord comme je l'ai dit tout à l'heure yàlla may ñu fekke ko parce que c'était le plus important et puis dans la coalition Khalifa Sénégal Khalifa président ku si nekk def nga sa job. def nga li nga waroon def. indi nga si sa kéemtalaayu kàttan on battu campagne on a le pays on a discuté avec les sénégalais mais euh, enseignement bi may njëkk a tiré bésu tey bi mooy d'abord la vitalité du processus démocratique sénégalais. Mm-hmm. Euh, dañu yàgg wax ne il faut une personnalité neutre pour mu organiser élection mais tey ki organiser élection yi wane na ne que yi mat nañu. wane na ne li ñu teg pour organiser ay élections Sénégal mat na donc la il faut aussi ñu féliciter loo situation boobu parce que créé nañu conditions yi ba nit ñi war a mën a dem voter si jàmm ak salaam mm. lu mu xat-xat-xat mën a def seen choix day toll nag ci àdduna fa nga xamante ne peuple dafay def choix et peuple nag bu defee choix dangay ñaan yàlla choix boobu mu nekk choix bi gën ci peuple yi peuple bi et c'est pourquoi il y a des tendances fortes qui se dégagent, comme Metin l'a dit tout à l'heure, mhm. qui montrent que le euh, candidat à la coalition, Dioma est président, sort quelque part, mais aussi il y a d'autres tendances peut-être qui font sortir d'autres candidats. Mais je ne pense pas qu'on peut arriver à un moment où il y a de la situation. Mm -hmm. jàpp nga ne fii fi toll bouleversement bouleversement bu grandiose bu mën a bouleverser l'état de la situation je ne mais li ma ci mën a wax rek mooy comme ni mu ko waxee léegi c'est-à-dire que bi muy wax sax nee na euh, avec euh, mu ngi jël euh, situation bi ak l'expression je l'ai perdu encore tout à dans ses dans ses propos mm-hmm. il faut que ñu am retenue mm-hmm. et c'est peut-être le conseil que je peux donner aujourd'hui que fi ñu toll il faut que les gens aient beaucoup de retenue mm-hmm. parce que l'attente est grande. sas sas retenu bi ci koy xaar. non c'est ñi nga xamante ne jàpp nañu ne gagné nañu voilà non jàpp nañu gagné parce que accroché fi mu ne nii gëmatuma ko. ah gëmatuma ne nit dina toll fa nga xamante dina jéem a accroché wu si pouvoir bi fi mu nekk nii. parce que tout simplement peuple sénégalais moo amoon fois pour tànn moo amoon pour fal président moom mu ngi wane li mu bëgg lan la. Mhm. mais bés bu ko wanee ba mu confirmé wu ci li ñu yaakaar wala mu infirmé wu beneen si leneen lu ñu yaakaar it. na nit ñi xam ne attentes yi il faut avoir peur pour le Sénégal de demain. moi ah. c'est ça de fond. avoir peur pour le ouais. Sénégal de parce que les les attentes sont là. c'est-à-dire que le peuple s'il a voulu traverser la tendance complètement et changer de dynamique et de paradigme c'est que peut-être que peuple bi am na lu bëri lu muy xaar ci ñoom ñii di ko xaar ci ñun ñii di ko xaar ci ñun ñii ñëpp toog fii tey jii mooy lan mooy remettre en place de Sénégal mooy remettre des institutions fortes et dépersonnalisées par rapport à la situation du peuple. Mmh. C'est remettre l'économie du Sénégal sur pied et profit au pays. Que créer des emplois pour les jeunes, les attentes sont nombreuses et grandioses pour man. donc li ñu ko waxee mais déception vous taxaw Sénégal xalifa président. non ci xew parce que ñaar ñoo gën a démarqué wu. te ñaar ñooñu sax kenn ki li mu rawee morom mi dafa bëri ci ci lu bëri bëri loo xam ne génn gum ci urne yi. am déception c'est ñàkk gëm yàlla la parce que da ngay wuti. Mhm. kuy wuti yàlla rek mooy joxe mooy may. c'est vrai moo koy jaarale nag ci ay nit. on nekk que l'instrument de la volonté de Dieu. Mm -hmm. si je peux ainsi. donc soo demee wuti yàlla joxu la xëy na li mu la xañ xam ne lu tax mu xañ la ko donc yaakaar naa ne déception waru si am boo xamee ne yow li nga ci waroon def yëpp def nga ci li nga ci waroon investir yëpp humainement investir nga si te Sénégal foo waral ñu gënal nag ñun ñii daf ñu waral gënal lépp. Mm-hmm. daf ñu waral gënal Pastef daf ñu waral gënal taxaw. daf ñu war a gënal PDS daf ñu war a gënal daf ñu war a gënal daf ñu war a gënal donc def am si déception loolu yaakaaruma ne ñun mën nañu nekk si posture boobu posture républicaine la ñu war a nekk dans une démarche républicaine et pour la République. merci